soo demee ci sunu yaa Aysa taxaw bi mu taxawu liggéeyub lislaam doonub jàngalekat ci kër yonent bi ganaaw yonent bi alayhi salaam mu doonu doonub jàngalekat ba boroom xam-xam yu bari ci saxaaba bay jànge ci moom waaye mu taarale xam-xamam war leen ne xam-xamam a gën a yitteel ci askan dénkaane boppam ba ba mu fay jóge nawleem la jël ci hadis muy abu hurayrata mu juleeku rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad ibni abdillah xaatimi nabiyina wa imaami almuttaqin sayidi al awalina wal axirin wa alihi wa saxbihi wa taabiina lahum bi ihsaan ila yawmi din asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu budul woon nag mawduu bi ni ma ko tànne woon kon duma ci wax damay doy loolu jàll Cheikh Ibrahima junj na ko léeg-léeg dañuy am lu ñuy umpale ndax dañ ñu ko dul wax wala fi dañuy lépp ñu ne doomi sàmm bañul dëgg dañ koo waxtaane gannaawam liggéeyub lislaam musta tàggoog jigéen moo tax bi ñuy tànn mawdoo bi ñu tànn alxuraan te xam ne moom ñoo dëkk di ci yëngu di ci xëy di ci gont waaye alwaqful islaami dafa doon lu tumuraanke te man mu yàgg ma yitteel yitteel ma it ci bëgg nit ñi xam ko te ma xam Cheikh Ibrahima it mu yàgg ciy wax yàgg ciy bind dawru saxaabiyaat nag musuma dégg ñu def ko fi confirence dégg naa nag ñuy am ay dars léeg-léeg ci annisa xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam ma ne woon nag nañ ci cof mottule ko jotaay bi dénkoon ko suñu doom al oustaz al imam Mor yàlla mi dogal dogal yaramam sutaati yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yàlla na ko yàlla may jàmm ak wér bu dul woon loolu duma jël kàddu kon damay doyloo liñ fi wax waaye ñu xam ne soxna Khadija ñu xam ne jigéen ci lislaam day am naw sasam te bu ko bayul day booy ndax góor mënu koo bay jigéen am naw sasam ci lislaam te bu ko bayul day booy liy firnde ji mooy yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne innama nisaau shaqaiqu rijal am na yeneen riwaaya waaye loolu laa ci doyloo mooy jigéen mooy ŋàdditu góor scientifique yi gëstu di jàngale wala di chercher di def ay recherche li ngeen di wax grain de kemb bi war a jur gàncax gi mu mën doon garab wala lu mën a doon ñaari ŋàdd lay doon boo xamul ŋàdd ñaari xar lay doon ñoom ay accompagnant rek lañu du ñu du doon du ñoom ñooy gàncax gi am na lu sew lu ne ci seen diggante ñoom ñaar ñu ëmb leen boo leen jiyee sax caxka googu mooy sax moo tax wolof tudde ko caxka jigéen nag daa doon genn wàll gi góor genn doon genn wàll gi misaal moomu moo tax bu góor manqué wala jigéen manqué doom du mën a am moo tax yeneen bi alayhi salaam ne innama nisaau shaqaiqu rijal ma wax la ne jigéen am na waar ci lislaam woowu bu ko béyul bay tool bi booy tuddal ñett ci jigéen ña su yaay Xadija nam taxawoo yonent bi alayhi salaam ba mu tiitee foofa kenn niwu foon ku moom la jaaxaloon nit ña moom jaaxalu ko ndax dafa teel gatandu lislaam di ko dégg ca njàngam nasaraan ya muy gatandu ba xam ne kii yaakaar naa ne war naa doon ki ñooy ki ñuy séentu mu def ay pexe ndax xam ngeen ne waxtu bi xaju fi ba sëyeen moom muy mu doon borom këram waaye ba mbir ma ñëwee la xam ne li ma doon séenoo ngi nii bu dul woon ak moom loola du am soo demee ci sunu sa taxaw bi mu taxawu liggéeyub lislaam doonub jàngalekat ci kër yonent bi gannaaw yonent bi alayhi salaam mu doonub jàngalekat ba boroom xam-xam yu bari ci saxaaba yi jànge ci moom waaye mu taarale xam-xamam war leen ne xam-xamam a gën a yitteel ciw askan dénkaane boppam bu ba mu fay jóge nawleem la jël ci hadis muy abu hurayrata mu julee ko loolu euh, mawqif bu rëy la taxawaay bu rëy la su suñu Aysa ni mu baree bokk ci saxaaba yi waaye mu batale na ne ko abu hurayrata jule lu tax xam-xam lay taaraw ki may ñetteele jeexale ko mooy sunu yaay umu sulaym nekkoon Madina di jigéen joo xam ne bi mu déggee lislaam daf ne jëkkëram lislaam ñëw na te góor ak jigéen bu ñuy sëy góor mën naa dugg lislaam jigéen duggagul de waaye jigéen moom bu duggee góor dugg mbaa ñu tàggoo mu ne ko man dugguma mu ne ko ko ñu tàggoo mu yaayu anas umu sulaym anas mooy kan doy na ci sëkk xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lan la wane ci lislaam lu bari la waaye waxtu yu mayuñu ko waaye doy na ci sëkk daf ne du sëy lu dul góor gu mën a doon baayub anas góor gu mën a doon baayub anas ku ñëw di ko bëgg si rek mu ne la ba anas mat góor tànn ku ko neex gannaaw gi ay dëkkandooma ki bokka bokkam yedd ko bam nangoo am borom kër waaye ci sartu ku xam lislaam te bëgg lislaam ci la ko abu talha ñëw labate mu ne ko sama can mooy doon jullit mu gàntal ko dem ne ko déedéet dem dikk dem dikk ba mu mujj nag iqna mu am iqtina ci lislaam moom Abu Talha ñëw nangu mu ne ko soxlawu ma can nga doon jullit doy na mag can boobu góor mënu ko góor mënul ne doon doonu jullit mooy doon sama can jigéen moo mën a doon ku taxaw ne doonu jullit ci jëkkër mooy doon sama can kon yéen jigéen am ngeen ci waarul islaam liggéey boo xam ne bu ngeen ko bàyyee mu booy hmm. ànd ak loolu ànd ak loolu alquran dafa bari lu muy mujmal lool mal mooy lan wax di tënk ñépp bokk ko waaye bu demee ba di leen teqantal di leen jox seen cër bopp innal muslimina wal muslimaati kon bàyyi na leen xel man amila saalihan min zakarin aw unsa kon bàyyi na leen xel sóoratu nisa kon bàyyi na leen xel sóoratu mariam kon bàyyi na leen xel kon jigéen am ngeen waar ci liggéeyu lislaam bi su ngeen ko bàyyee mu booy lii laa bëggoon a wax mënoon naa ko gën a yaatal waaye waxtu yu mayuma ko waaye yàlla nu yàlla defal dégg ak topp kàddu gi ma xam ne nag kàddu la goo xam ne joxoon naa ko sama rakk ginnaaw organise bi dafa xaw a xat Oustaz Aidara nga bàyyi ma jàllale leen leen ko mooy xadi li mu wax loolu laa musa wax bi ñuy jàng alxuraan dama leen daan wax ne seen bàjjen Binta Thiaw de laa leen di xool xoolloo ba fi mu ne maa ngi leen koy wax ba keroog bi may dem di ko wax Adja Binte loolu laa ko wax nee naa ko gone yi musu may dëkkal sama lamiñ ci seen nopp seen bàjjen Adja Binte ndax nit koo bëgg lam mel danga koy joxoñ ku mel ni kooku bu ko nawee dina jéem a mel ni kooku xeeb naa lool ay nangama ak nangam waaye nag yàlla moom li muy denc moo ko moom ma bëgg képp ku fi toog ñaanalal ma xadd yàlla gàddil baddil ko yàlla na ko yàlla baddil lii ñuy teg xeer na doon ab symbole waaye yal na ko yàlla baddil ñaanle leen ma yal na ko yàlla baddil te may ko wér bàyyi ko kum xelam ak pas-pasam boole ko jàmm ju mat sëkk barkeel ak njabootam alquran yitteel na ko démb la ñaareelu doomam bu jigéen doon tari doomam ji taaw bi tari na daaw démb la daam ah, la pare la daa ñaareel ju doom ji tari ku tuuti ki tay bi ma ko lëngee ne ko fay sa wax na ma ko sax fàtte naa ko waaye ma ngay kaw kon nag ñaana la leen ma xadi Cheikh Ibrahima Ibrahima Cissé ak képp ku ne ci jotaay bi la leen ma xadi yal na ko yàlla baddil yal na ko yàlla baddil yal na ko yàlla baddil te mu gën ci moom gën ci liggéeyu lislaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu